bàyyiwul comme ni ko doon faral di defee rek euh, di gën a encourager ndaw ñi ci euh, lépp loo xam ne rek euh, mën nañ ne jàmmi réew mi la te tamit faratay réew mi la di yitteem maanaam ci loo xam ne rek dañ cee war a taxaw pour lépp loo xam ne day développer réew mi di Sénégal mu jàpp ne nag loxoy ndaw ñi dafa war a dugg ci biir maanaam daf see war a saf sàpp te loolee moom mi jàpp na mooy gisi si première tax naka saa su nekk mu di si woo ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi. abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom mi leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV